yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi guddig juróomeel ga ku ci julli ñeenti rakka rakka bu ci ne a jàng faatiha benn yoon alam nashrah ak xul huwallaahu lu ci ne ñetti yoon bu noppee mel na ne ko xaj junni yoon xumra junni yoon des na ko musal ci ak ñàkk des na ko dolli wërsëgam te xaraf wu ci ne des na ko bind ñaari malaaka yuy far ay baakaaram di yokk ay yiwam loolu moom moo nekk guddik juróomeel ga Rythme 28 TV ak sa chaîne bi topp tànki sëriñ bi